balaa nga naan dafa faatoo rek il ñu suul ko hmm. xam nga Idi nit ñi jàppoon nañ ni faatu na bu yàgg mais gis nga ni muy commencé di euh, comment dirais-je encore di occuper waat l'espace public politique xam nga Idi keroog ci week bi dafa dajeek euh, yaa ngi wax note bi ñu génne dafa dajeek ñi ànd ak moom am na ci ñoo xamante ne franchement seen doxalin daf ko ñaawlu parce que ci wax sax mu leen di xamal ne ñoom dañoo ëppal. mais du ma wax attaqué na Ali Saleh ak. Euh, Yankoba Diattara waaw waaw du ma tudd ay tur. xamal na leen ni carrément lenn ci seen doxalin moom rafetloo ko te Idrissa Seck présentement nii révélation laa lay defal soxna si. allez vas mooy mu nekk candidat benn Benno Bokk Yaakaar. c'est pas une révélation ça. non xaaral xaaral rek mooy mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar te Macky Sall du bokk. et yaa ngi dégg. Mm-hmm. démb président daf ko invité ndogu. démb. Mm. boobu de rëcc na ma. non non loolu amul. waaw mm-hmm. ah, waaw bu la neexee président. non non loolu amul. waaw ndax démb démb demee formel. ñëpp ndogu général la woon fajar ak Sonko. non xaaral rek julli na fajar ak Sonko. xaaral mais démb ndogu général la sax bari ah, ah, li ma bëgg a wax dana àgg moom bu yeboo ñu weddi voilà vas-y léegi bokkoon na ci bokkoon na moom moom Idrissa moom waaw mais monsieur le ministre ba am rek maa damay laalal rek monsieur le ministre tamit source la weeru koor lañ nekk non ah? moom ay contre fa lay dóor <laughs> déedéet ay dóor ay contre <laughs> vas-y Mansour yooyu man defi bëri yooyu man du non Mansour toi aussi xam nga Mansour ah. man dama ne démb aqulaay ah. taalaa laay waxee waaw bu la neexee man ak ñaar fukki nit dama ko gëm man man ak ñaar fukki nit ñoo bokk ndogu ak président kon gisuma fa Idrissa Seck kon boo waxee ne démb mu ngi ndogu ak président damay weddi damay weddi damay weddi kan moo ndogo man man démb da nga ne doo ndogo doo nga wax d'accord waaw d'accord loolu amul ce qui était prévu ce qui était prévu Mansour aussi je je je renforce ce que Ablaye Sow a dit. démb président dafa dafa ndogu ak ñu nga xam ah ne ñoo doon ñëw dans les débats président ñoo bokk ndogu ñoo bokk ndogu voilà de bonne source. léegi moom Idi weekend bi moom li mu jàppoon mooy dafa bëggoon seeti Ousmane Sonko mais il était prévu que. d'abord mu waxtaante ak président bu dee président gisu ci benn inconvénient ce mardi si dafa war a toog ak Ousmane Sonko moo tax gis nga soxna si gis nga appel bii appelu Mame Mbaye Niang bi ku yaakaar ni appel simple la non da ngay nax sa bopp. lan nga ci gis. Ah, non cest à l'appel euh, du appelu euh, entre ñaari particulier kese xam nga Juan Branco. Mhm. nee na yaa une délégation boo xamante ne dafa ñëw fii man dama ne Juan Branco est-ce que wax na lépp. Mm. waaw dafa mel ni waxul lépp bàyyi ma yem foofu rek non non bàyyi ma yem foofu rek non bul ma yem foofu rek nga ni waaw mais la ma dul référent non Mansour waaw man bi may sama jëma bu mu yàqoo mooy sa source bi amul waaw bu la neexee nga weddi loolu amul mais man moom laa man je suis formel xam nga man dama ne au-delà de lépp ah, ah. ay julli te man dama ne su ma man lu ma wax lu ma des sama àddina may wax lu amul may teg lu nga xam ne may wax ni lii maa ko def te amul démb démb ba nga ne Idrissa mu ngi ndog ak président démb mhm. dama ne loolu amul parce que bu fekkoonte ni ndogu woon président aw benn moyen de ça aw ma benn moyen mhm. mais démb man ak ñaar fukk ak juróomi nit bokk nañ ñu toog. yow daal ndogu tey bi moo la wóoru waaw ndogu tey bi moom